dal leen ak jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii di Rewmi Quotidien Walf Quotidien Enquête Libération La Tribune Sud Quotidien Source A Vox Populi mu xëy yóbbu ñu Tamba di ñu xamale ak kan moo rey Binta Camara yéenekaay gi di Rewmi Quotidien mu ñu xamal naan ñu di wax Binta Camara kan moo ko rey ki ko rey Pape Alioune Fall tudd amoon na lu toll ci fanweer ak ñett ci ay ata waaye nag ku jege woon bàyyi Binta Camara la sax la woon yéenekaay gi nee na en tout cas bàyyi Binta Camara di Malal Camara maanaam ab bras magam di Pape Alioune Fall moo rey ki nga xam ne maanaam mooy Binta Camara yéen kaay gii di Les Échos mu ñu xamal lan ñu Binta dañu doon wax ne dañoo yegg si kawam ba pare doo ko rey waaye nag loolee amula Binta Camara rey nañu ko waaye nag kenn yeggul ci kawam ki nga xam ne nag mooy Pape Alioune Fall bëggoon naa yegg si kawam waaye mujjul yegg si kawam moom waa ji di Pape Alioune dem na sax ba yëg boppam ba tuur ndoxum mandiyo maanaam ndoxum guuram dem na ba tuur ko ki nga xam ne mooy Binta Camara waaye nag jutul yegg si kawam journal bi nee na en tout cas Binta Camara dafa xeex ba dee ngir nag bañ a ñàkk li nga xam ne maanaam mooy ak ndawam yéen a kaay gii di réew mu ñu xamal ñu dëgg la Binta Camara rey nañu ko waaye nag dafa xeex ba dee ngir nag bañ a ñàkk li nga xam ne maanaam mooy ak ndawam journal bi mu ñu xamal ñu Pape Alioune Fall mi nga xam ne moo ko la en tout bi nga xamee ne def ci biir nit ñi maanaam ànd ak nit ñi naqar dem sax bay wax ci groupe WhatsApp yi naan leen Binta Camara ko baaxoon la sax ba ci wax wax joo xam ku ñu ne Pape Alioune Fall mii di wax maanaam moo rey Binta Camara doo ko gëma yéen a gi mu ñu xamal ñu en naa nit lëndëm na waaye nag Pape Alioune Fall li tax ñu daal di koy jàpp maanaam police scientifique moo fa jaar ndax dafa def li nga xam ne mooy géolocalisation moom ak Sonatel maanaam topp téléphone Binta Camara ba fekk ko fi nga xam ne maanaam mooy kër Alioune Fall ba ñu demee nag ba fekk ko fa kër Pape Alioune Fall fekk nañ fa ab kilote boo xam ne taq na ndoxum góor ba pare tamit daal di taq deret ñu fekk fa téléphone Binta kamara yéen a kaay gii di Vox Populi ak L'As ak enquête ak Walfadjri mu ñu xamal lan ñu Pape Alioune Fall nga xam ne moo def njombe gi maanaam ñoo ngi ko jàppee ci kër Malal Camara kër baayu xale bu jigéen teen bi fi nit ñëpp toogoon maanaam nekk ci dëj bi fa la ñu ko na niib daal di jàpp jël ko yóbbu këram ba ñu ko lëñ bëtee lañ fa fekk téléphone ba journal bi ñu fekk fa Moustapha Diakhaté la mu xamle nag nee na képp koo xamante ni yegg nga ci jigéen maanaam daal di koy siif dañu laa war a tàpp ba nga xam ne dootoo nekkati góor bay jugal yéen a kaay gii réew mi ko dujee ñu fekk fa waa ONG Jamra ñoom nag la ñu xamle nee nañu peine de mort ci boppam la ñu war a indiwaat ci réew mi maanaam ku rey nit ñu daal lay reye Alioune Tine moom nag la mu xamle nee na peine de mort du solution bi te peine de maanaam bàyyi ma la kaay gi di enquête mu ñu xamal naa ñu Pape Alioune Fall moom nag sa kanamu enquêteurs daat nay nangu ne moo def njombe gi daat nay nangu ne moo rey Binta Camara bu njëkk nag da ko doon commencé di weetee yéen a kaay gi mu ñu xamal naa ñu en tout cas ku jege baayu Binta Camara la journal bii di Vox Populi mu ñu xamal naa ñu bi nga xamante ni tegoon nañ ko a réew mi ko di jeex mu ñu xamal ñu li xew ci réew mi doy na waara journal bi nee na benn liggéeykat ab ouvrier boo xam ne dañu ko ray kër njaay loo benn oto boo xam ne dafa ray benn xale xale bu jigéen Kaolack yaraax ñu fekk benn paa boo xam ne dafa faatu ci ak lakk ci wetu géejug yaraax gi fekk nañ fa tànku nit ñu fekk fa benn jàngalekat boo xamante ni dafa xar loolee lépp ma ngi ci yéen kaayub di réew mi ko di cee Omar Faye leeral askan wi ci journal bii di Vox Populi la mu xam ne nee na nguurug Sénégal ñoom ñoo ngi dialogue jamono joojee askan wi ñoom ñoo ngi dee journal mu ñu xamalaan ñu dialogue politique bi boo moytuwule maanaam Karim Wade ak Khalifa Sall ñoo koy yàq ma ngi ci réew mi ko di cee journal bi mu ñu xamalaan ñu en tout cas li am des front de résistance nationale ku jégi ñoom nag daal nañu lànk ne ki nga xam ne mooy professeur Babacar Gueye ak Majid Ndiaye du ñoom ñoo war a jiite li nga xam ne maanaam mooy kuréel gi ëmb dialogue bi journal bi di Les Échos mu ñu xamal naan ñu Siré Dia mi nga xam ne moo jiite woon poste te dàqee ko ca kër ga boobaak léegi mën na ñetti ay bés waaye nag moom Siré Dia ba léegi nii ma nga poste di gunaandaata teg si nag maanaam di jël ay nit di leen di fal di leen di tabwa loolee moo jaaxal ñëpp ba pare di jël ay dogal journal bi nee na en tout cas Siré Dia dàqee nañ ko poste waaye ba léegi ma nga toog poste jël ay dogal di recruter ay nit